Ah, da ngeen di jàppale Macky Sall ci tas Yewwi Askan Wi. dafa jóg bu tas Yewwi Askan Wi. Ah, bu ne def dialogue dialogue boo xam ne que mën na ko tas. yow talal la kii parce que Ousmane Sonko ñu ngi ko gazé def lu nemmeeku politique ba noppi nangu kanamu Khalifa Sall loolu posé wul problème nga foog. il faut ñu distinguer mbir yi. distinguer. xam nga Yewwi Askan Wi dafa am nu mu tëddee am fu mu jógee am fu mu yegsi ñun Pastef ak taxawu Sénégal. ñoom ñooy les de piliers yi créer Yewwi Askan bi Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ñoo njëkk a lancé idée Askan bi mu dem ba ñeneen fekk si ba nañ dugg si mu am lu ñu boole mooy ànd élection locale ànd élection législative ànd élection présidentielle au second tour jàppale ki nga xamante ne moo génn au second tour loolu moo nekk ci charte Yewwi Askan bi di ànd di xeex ci charte boobu aussi ñu ne woon bu ñu amee majorité dañuy delloo Karim Wade ak xalaat seen ak ak seen yelleef nest mu nekk entité boo xam ne day entité liggéey boobu ba léegi boobu ba léegi ba nga ko sosee ba léegi ca li si njëkk ya ba ci législative bi ba tey amul benn yoon bu ñu mën a ŋàññ taxawu Sénégal ci yàq yeewu askan bi wala def loo xamante ne bokkul ak intérêt yeewu askan bi amul amul benn maire taxaw bu deful intérêt yeewu askan bi ak opposition amul benn député taxawu Sénégal bu liggéeyul pour intérêt Yewwi Askan Wi ak opposition. boobu ba tey donc ñun on est boobu ba tey waaw li am mooy. mais bi tey jotee nag. li am tey dialogue amagul kañ la dialogue fan la dialogue nan la dialogue xamaguñ président dafa lancé idée que dafa bëgg oote dialogue pour ñu waxtaanee ay ponk ci réew mi ku nekk sa kuréel war nga daje ak sa ay ñooñ waxtaan ak ñoom taxawu Sénégal li muy doxee ci tënk rek du parti boo xamante ne. xalifa day tëju këram ne jël naa Moussa Taye mooy sama conseiller dàq naa ko tey fal naa kii génn naa kii comme ni ko ñeneen ñu defee non non 2019 bi ñu jàppale Idrissa Seck ci élection présidentielle yi soo gisee mu yéex a génn décision bi parce que xalifa dafa waroon wax ak képp ku bokk ci coalition bi ba nga décider pour ñu mun décider ensemble jàppale Idrissa Seck bi ñu def au Covid ci président Macky Sall dañu concerté wu ak xalifa Sall mu oo tous les responsables laajte seen ci lañ pare def synthèse bi mu dem uyu ji même bi yi di jaale si Khalifa Sall laaj na ay nit ne leen Macky dafa ñëw jaale si ma donc foofu dañ koy waxtaanee bi li amee dañ ne dialogue amagul président lancé na idée bi mais ñun nañu laaj suñu ay base au niveau national et international les femmes les jeunes les cadres ku nekk wax lu mu xalaat loolu la ñu nekk di def di def ay remontées d'informations. suñu paree validé gu leen seen participation ci dialogue bi déedéet suñu paree ci loolu suñu jotee invitation officielle jot ay TDR yu leer nañ ñu xam li Macky bëgg ak li bëgg ñu waxtaanee su boobaa nag ñu nañ taxaw ne leen taxawu Sénégal nii la gisee nii lay doxalee. donc ngeen di taxaw Sénégal nii la gisee nii lay ba nii la bëggee au sein de Yewwi Askan Wi wóobu la publiquement seen yoonu bopp. mu foog ni ba léegi. ci lu jëm ci wàllu ay élection comprendre après bu woo ci base bi. bu dem mm-hmm. war ngeen a informer waa coalition bi. donc xam nga Khalifa Sall dafa baax dem ci ci émission mu ne dañu bokk ci Yewwi Askan bi bokk ci F24. waaw xam nga n'est-ce pas mais xam nga xamaguñu ku ñuy invité en général bu ñuy dialogue on invite les partis et les mouvements et pas les coalitions en général. F24 yooyu ay principe am. non lu mu bëgg. ak ñun ñoo ci bokk. non F24 dafa ñu si bokk am na 112 organisations. mais ñoom li ñuy xeex mooy troisième mandat du fi am benn ñaareel bi nañ modifié article 29 30 31 pour Khalifa ak Karim bokk ci élection bi bi mooy képp ku a bokk na nga bokk loolu ñuy xeex man maa demoon signal taxawu Sénégal ñun bokk nañ ci engagé nañu li nga wax bi mais dama ne dialogue national buy am en général le président day inviter les partis et les mouvements suma yi nekk assemblée sax la ñuy invité donc souverainement les partis ñoom ñooy décider dañu wala duñu dem. mais pas les coalitions. pas les coalitions maintenant l'élégance politique veut que bu ñu décider kay ñu dem yeewu askan bi ku nekk wax sa position mais li jot am nii mooy prouver li ma wax nii mooy wane ne que di yeewu du yeewu mooy décider parce que Khalifa am na lu wax ci dem ne moom gëmul chaise vide xëy na moom kon xëy na kon moom am na orientation pour dem dialogue Ousmane Sonko démb nee na moom demul dialogue ça veut dire que c'est les partis qui décident souverainement. que ci charte Yewwi amul fu mu bind ne Yewwi moo wax décider pour dialogue ou non dialogue donc bu fekkee parti mooy décider aussi day yàq seen principe coalition yi ko xam nga demee ci élection présidentielle da ngeen di jàppale kii def face Macky Sall non non non maa xam nga xam nga yàqu ko parce que en réalité Moussa Sénégalais F12 noppi dem ci dialogue parce que F F naka F24 noppi dem ci dialogue parce que F24 li ko tax a judd mooy Macky Sall du nekk candidat. waaw Mansour Mansour defal ndànk Mansour defal ndànk defal ndànk defal ndànk ma wax la. c'est que F24 dafa ne demul dialogue. pardon. F24. waaw rek déglu ma moom moo pour dem dialogue. non non dama ne ñoo xam nga ba ma déglu rek ñu waxaat dama ne en général quand on évite on évite les partis et les mouvements présents à l'Assemblée. ci loolu. c'est ça d'accord nañ ci boobu. F24 tey ci ngoon am nañu réunion à 17h30 au siège de Bougane Gueye pour statuer sur la question du dialogue politique kon waxaguñ dara mhm. xam nga xam nga lu ñuy wax mhm. donc mënuñ ko mënuñu ëf gëm ni sàmm xam nga lu wax. mais est-ce que nag yéen non non yi nag. Malick c'est-à-dire F24 ma ma ma su léegi ma ma su defal naa ko nag non. yow yaa ngi problème xam nga defal naa ko rek defal naa rapport ak Macky du nekk candidat quel est rapport. quel rapport dialogue pour lan la waaw pour lan la la la laaj naa la pour ngeen définir lan ngeen demee ci élection yi waaw d'accord waajale élection yi mën na lu ñuy dugalaat lu ñuy génnaat lu ñuy yeesalaat waaw après mais loolu kay mënoo ko def ak koo xam neex nga jóg ne damay dem mal demuma tu es souverain te soo dara loolu amul solo nga lu am solo nga def lu cohérence ak lu ànd esprit ñun taxawu Sénégal avant Khalifa dem prison ba ni muy demee prison ba ni mu génnee prison négocier wuñu neexaluñu utuñu li ndax Macky su suñ ko bëggoon kon li ñu teg toog bi tey ça faut que ça soit clair beneen bi mooy Macky Sall est président cinq 25 février 2024. waaw bu neexee yàlla. waaw ba tey mooy président dem moom moo présidé perte du premier mai. waaw wax ak travailleurs yi. garanti wuñu loolu bu wootee dialogue bu wootee dialogue ñi bëgg a dem dialogue suñ demee ñaar ba mu nekk mu ne lii laa bëgg waxtaanee ña ne ko ànd naa ci yokkal lii. wala wàññi li mën laa bëgg ñu waxtaanee bu fekkente ne moom man sama wàllu bopp bu tegee ne moom dafa war nekk candidat may ne ko waroo nekk candidat te doo ko nekk jalem dam jalo teew loo ko ne ko waroo nekk candidat doo yaakaar ne Macky Sall day dem jalo pour ne pour valider sa sa candidature. amul sens yéen Moussa ne. si si mais sax ah. mais mais mais loolu sax ñu wax ko c'est-à-dire chaque jour ñu ne Macky Sall dina candidat baax na wax na ko kan la Macky Sall bi nga ko dëgg mais ku am fit dama nga doon nekk candidat man su ma demoon dialogue ne ko amoo droit nekk candidat doon nekk candidat. et pourtant Barthélemy Diaz waxoon na fi que ne Macky am na bel et bien droit pour def euh, candidature am 2024 lan moo tax tey jii ngeen changé seen discours. loolu laajte Barthélemy ne déglu man yow yaa man man je suis fait du droit constitutionnel. droit constitutionnel Sénégal tey. këpp ku taxaw ne Macky Sall am na droit def beneen mandat tegoo ko ci droit constitutionnel. non non c'est que sorti sorti parti boobu sax Moussa dama ci ànd c'est que sorti parti boobu boobu ñoom boobu ñoom génnaguñu woon euh, ci seen coalition. non loolu amul sax xam nga man man Mansour jox jugement non non Mansour moi je pose de principe nga man man je parle de principe principe laay wax droit constitutionnel xam naa ci dara ki ma ko jàngal mooy Serigne Diop moo jàngal Serigne Maa Jox Fall Maa Jox Fall bokk na si ñi ci gën a xereñ en Afrique. loolu mooy dëgg bi c'est la vérité ki bind mooy Madior ki ko bind la mooy makki sal bindal ma lii laa bëgg mu bindal ko ne ko amatul beneen mandat Macky ne c'est fini pour moi je dois partir dafa leer nañ dans cinquante ans bu Sénégalais yi di interpréter dañaan lu Macky waxoon ak Madior da la ñuy xool Macky ak Madior yëpp nañ ne beneen mandat Madior moo gën ci li mu wax wax na ko nee na dafa yor droit kon nga mu gën ci droit bi Macky moo ko bind wax ko mënatul nekk bu ñu demee dialogue ñi yaakaar ne dañu dem dialogue pour naan Macky ko bu ñu demee dialogue di dira à Macky Sall amoo droit def beneen manda ah amoo droit ma ñëw. Mm, mm. déposer ah maa ko wax fii tey bu ñu génnee nga jox interview xool Macky Sall amoo droit def beneen manda benn benn Ibrahima. Mm-hmm. ñaareel bi mooy conseil constitutionnel bi war a àtte loolu la ñu war a waxal dëgg ne ko amul droit déposer su déposer am leen fit ak fulla ak fayda ne ko war a déposer loolu euh, looy looy tontu. ni mm-hmm. ku ci mel ni Ousmane Sonko. Mimi Touré mi ñuy wax ne dialogue bi.